conseil constitutionnel bi am pouvoir wu élection yi. mais est-ce que jàppuloo ni mënoon na jàpp date bi. déedéet loolu du ci ay attribution bokku ci. conseil bu defoon loolu dana jalgati yoon bokku ci ay attribution muy fixé datu élection bokku ci moo tax mu ne autorité administrative bi euh, te xam nga amul droit jox injonction. administration non boo nee bokkul ci boo nee bokkul ci attribution. waaw alors que président bi am. sañ-sañ bi. Mhm. def ko mu dindi ko. waaw parce que les pouvoirs sont séparés dans l'État loolu mooy rôle am en matière électorale conseil constitutionnel boobu noonu conseil constitutionnel président bi di président conseil constitutionnel boppam ko lu ko neex mu dogal mais les pouvoirs sont séparés dans l'État. ok <laughs> d'accord mais yow yow da nga ni da nga jàmm ci ngay. ci nga ci mooy sa mooy sa yitte. mooy sa yéene. mais am na ñu jàpp ni pour jàmm ci élection yi ñëpp dañu war a bokk. Karim Wade dafa war a bokk Ousmane Sonko a bokk. loolu weesu na c'est fini loolu weesu na Pape loolu weesu na loolu weesu na. Karim Wade bokk weesu na. weesu na c'est fini weesu na man biñ ma éliminé Karim Wade bokk ci liste 20 yi man Karim Wade laa doon jàppale ci 21 yi mooy mais annoncé woo ko woon loolu. déedéet annoncé gu ma ko ndax diggante bi ñu éliminé ak bi ñu éliminé Karim benn la benn décision bi la benn décision bi la. d'accord alors léegi euh, gis nga euh, ñu bari ñoo xam ne génne nañu leen ci kaso bi. ñu jàpp ni pacification la ngir jàmm mën a dellu waat ci forme bi noo ko gisee. ah man kat xam nga Pape xaw ma dossier yi lu ca ne. waaw man mais gis nga riir mi quoi gis nga riir mi. waaw dégg naa riir mi loolu yaakaar naa lu mel ni tam mosoo ko fi gis. Euh, benn bis lu ëpp téeméerin daanaka génn ci kaso bi. loolu mosuma ko gis. waaye daal comme luy indi jàmm ci réew mi lañ yaakaar ne dana ko indi ànd naa ci bàyyi boobu ànd naa ci dañ leen jàppoon pour des raisons politiques ñu bàyyi leen pour des raisons politiques jeex na. kon suba bu ñu génnee Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko. ah oui kooku je vais applaudir Bassirou Diomaye moom dañ ko war a génne moom mu génn candidat la dañ fexee nu ñu def ay pexe génne ko mu dem battre campagne lu mën a nekk kaso nekk candidat bu gagné élection yi nekk kaso nu ñu def. malgré charge yi nga dégg yëpp ci seen kaw. oh, oh mais xam nga Bassirou Diomaye dafa bind ci page Facebook am. je ne le défends pas xam nga loolu beneen la. mais am beneen bu ko fa fekk je le défends pas mais. candidat la bu conseil conseil retenir candidature am nañ ko génne mu dem battre campagne point lam def ak lam def loolu sama yoon nekku ci. mais nañ defi pexe. nañ def ay pexe mu génn waaw nañ def pexe mu génn. te boobaa du am loo dara loo si loo si wax. aw ma benn reproche bu may defal qui que ce soit duma ko defal procureur du ma ko defal ministre la justice duma ma ko defal président de la république au contraire dama ne ñii jàmm lañ bëgg candidat la nañ ko bàyyi mu génn battre campagne comme tout le mais jàmm jooju ngay wax. te ñoom itam ñu koy wax ñeneen di ko wax. acte bii ñu mujj a euh, gis muy mbiru Ngagne Demba toure xaw ma yaa ngi koy suivre. Ngagne Demba waaw waaye sama turandoo boobu nga xam ne greffier la moom daanaka dafa jógee. Euh, dinaa constituer pour moom demain. déet waay waaw. Jérel defan sama sama do mën naa ko jàppee sama doom la Ngagne Demba. Mhm. dinaa dem déposer lettre de constitution demain défendre ko incha allah. Mhm. d' mais gis nga taxawaay bi ci syndicat euh, justice bi def. waaw greffier la même chose. oui mais loolu lan la mën a indi nga yaakaar. non xam nga fi mu nekk nii comme ñëpp dañuy prêcher la paix. dañu dox jàmm jàmm rek ci mujj. kon dañu war a teg yoon ne rek teg ci dem ci. jàmm non non teguñu yoon de. non waxuma loolu de waxuma loolu de waxuma ñu teg yoon fële de. nañu dox jàmm dox jàmm wax jàmm xamu lu mu def xamu lu ñu koy reproché tout à l'heure yónnee nañ ma. Euh, juge d'instruction bi euh, xam nga dañ ko décerné woon mandat d'arrêt. Mhm. des yónnee nañ ma mandat d'arrêt bi maa ngi ko doon lire li ñu koy reproché bari na mais dans le cadre de la recherche de la paix et de la stabilité du pays mais loo jëndee jàmm jar na ko c'est pas un terroriste hein c'est un jeune engagé politiquement qui tient des discours politiques xam nga wax bu dee dañ koy placer ci contexte am <coughs> un acteur politique. bu taxaw dans une arène politique il tient un discours politique donc. donc loolu aussi da nga koy da nga koy accepter Ousmane Sonko ci discours. ah oui discours am discours am yëpp moom Ousmane. ma ne euh, waxuma xaw ma discours am yëpp xaw ma daal mais comme jàmm la wut daal nañ bàyyi ñëpp ñu génn. non mais yaa ngi yaa ngi non discours yi laa la wax aussi. da nga ne un acteur politique. oui un mais acteur politique mais dans le cadre d'une manifestation politique nañ ko apprécier noonu. bu ñu ko détaché ci contexte bi rek dafay am beneen caractère. c'est-à-dire cest loolu mooy sa position tey. mooy sama non position tey. mooy sama position mooy sama position depuis toujours. non depuis toujours pas bi ngay nekk au pouvoir. non xam nga euh, xam nga aussi mënuloo euh, apprécier euh, proposition nit ñi walla euh, seen ay position par rapport ak. li nga wax ne ay pou no man bi ma nekkee pouvoir rek bi ma nekkee opposition jeu di les mêmes choses on n'a pas le droit de euh, mënuñu amuñu droit jël euh, génne discours bu homme politique tenir ci arène politique génne ko ci contexte boobu di ko apprécier autrement bu ñu ko apprécier autrement rek gis ci leneen Ngagne Demba Touré est un jeune acteur politique li muy wax yëpp c'est dans le cadre politique qu'il le dit c'est un opposant mais Ngagne Demba Touré est-ce que mën na toog di raay président du ko def il va flageller son son régime et son système parce que euh, c'est un opposant il n'apprécie pas le démarches du pouvoir donc am na droit joxe opinion ci ni réew mi di doxee noonu laa ko jàppee. donc bu subaa nga dem. incha allah naa dem. Euh, constitué wu bi constitué wu. waaw. pour pour défendre comme. oui incha allah. actuellement mi ngi mi ngi mi ngi rëbës. mi ngi rëbës oui mais il s'était préparé à cette perspective xam nga kuy képp kuy def politique. da ngay xaar bés am am gàllankoor bu demee noonu bépp homme politique bu xaarul loolu rek mais président Macky Sall. yow yaa ngi koy xaar yow. non non man du ma wax luñ may tëjee. wala luñ may jàppee weesu naa ko non damay laaj rek. non non mais weesu naa foofu man weesu naa loolu. ah mais non non man Pape du ma manifester. waaw ah, d'accord du ma. bi yow kon bi yomb ngay def. déedéet du bu yomb dama ko ko dépassé. non bi yomb ngay def du ma ma wax luñ may jàppee dama ko dul defati <laughs> weesu naa ko itam xar na weesu mbote. mais pourquoi nga leen ciy encouragé ñoom. nee encouragé wu ma leen ci de dama ne dama je les comprends encouragé wu ma kenn mu def quoi que ce soit man du ko def weesu naa ko daan ko def il y a 40 ans il est né en mhm. doom la. Mhm. Mhm. et puis c'est un acteur politique dañ apprécier li muy wax par rapport ak euh, son engagement politique surtout Mhm. d'accord alors donc fi mu nekk nii yow sa wax mooy nañu dem ci jàmm jàmm jooju d'accord loo mu euh, par exemple euh, élection yi ñëpp di bokk bokk ci loolu bu fekkee loolu mooy indi jàmm ji àndoo ci loolu. Pape xam man ci lu ma ànd lii décision bi conseil. ah mais non man la laa lay wax nii. waa ma ne. non xam nga xam nga xam nga yow yaa ni ma. léegi yaa ni ma. déglu bu baax li nga wax te Sénégal yi ñu koy dégg waaw non mais non li nga wax dama koy wax nit ñi dégg ko dama ne la Bassirou Diomaye Faye nga ni ma bu dee crime la sax dañ ko war a bàyyi mu dem waaw crime nga ma wax nga ni ma dañ ko war a bàyyi mu dem mais est-ce que def na crime alors ma wax la ci élection yi nga ne noo conseil constitutionnel bi li mu wax ci laay sukkandiku waaw mais lii lépp yoon la pourquoi kii nga war a jàpp ni même bu defee crime dañ ko war a bàyyi dafa nag il est présumé innocent ah, ah, ko jàppee laa la wax dafa ndànk les charges yu ñu retenir contre wi uute na ak lim def attention faut faire attention il faut pas faire de confusion <laughs> Pape attention. mais ñëpp bokk bu dee indi jàmm àndoo ci loolu. déedéet waaye ma ne bu ñëpp bokk moom loolu mënta am mënta ne c'est impossible loolu mënta nekk Pape il faut être réaliste. te loolu ay pexe mënu ko liggéey. ay pexe mënta ne. non ay pexe mënu ko liggéey. déedéet lii ñu tënk fii ci këyit gi ay pexe mënu ko dindi pexe mënatu ko dindi c'est même bu ñu ko dissoudroon. dissoudre dissoudre moom ñi signé kayit gi. dis bu ñu. bu ñu ko dissoudroon. <laughs> dissoudre mooy la conseil constitutionnel. <laughs> même bu ñu dissoudroon conseil constitutionnel la décision du conseil subsisterait à ce conseil la c'est une décision déjà rendue hein yàlla traité traité ko bu membre yëpp dee woon tey décision bi rendre nañ ko ba pare c'est fini te yàlla bu mu am Bassirou Diomaye mi daal nañ ko bàyyi mu génn candidat la. Mhm. te yaakaar naa gars yi nga def ay d'accord ni ma déggee ministre de la justice wax. ak li réew mi di fonctionner temps ak li président de la république mujjee wax. ah, ah mais wax ci réconciliation wax ci pardon man li ma ci jaaxal mooy ñaari baat yooyu daf may fàttali bu ma daan dégg euh, bu daan dégg Guinée wala Côte d'Ivoire bu ñuy wax réconciliation ak pardon cest à loolu bu ma bi ma ko gisee ci euh, ci communiqué conseil des ministres daf ma jaaxal. ndax lan moo war a indi loolu quand est-ce que Sénégal egg na fu ñuy waxee euh, lu jëm ci wàllu pardon ak réconciliation. ma ne Pape xam nga dëkk bi ku fi nekk ku ne. xam nga ne le pays est déchiré entre ceux qui sont avec Macky et ceux qui sont contre makisal Sall fi am réew du doxee noonu ñii dañu ànd ak président Macky Sall ñii contre président Macky Sall te mënuñu bokk jotaay fu ñu la preuve la dernière fois bi ñu nekkee assemblée nationale moo fa xew gendarme yi dugg génne ñi ànd woon ak euh, groupe parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar génne sànni ca biti alors loolu waratuñ koo gis image yooyu rafetul Ah, donc il faut que ñuy waxtaan j'espère que. d'accord léegi waxtaan boobu ngay wax. Hmm. ndax kon pare nga pour wuy ci dialogue bi ñu la ci woo. mais dialogue amu fi droit ah, ah, le temps au dialogue. le temps est à de l'élection. waaw mais maître nag mais maître nag yow yaa wax léegi nañu waxtaan. ma ne la eh, dialogue nga nii attention wax ma loolu de eh, bu ma wax loolu ma waxoon nag Pape <laughs> Pape dialogue fi bu ñu defee élection ba pare président bu bees bi bu ñëwee mën na woote dialogue mais fi mu nekk nii dialogue xëjatu fi moom mais waxtaan. amul waxtaan même même candidat yi ñu waxtaan ci ci. dàgg yi ñuy jàpp waaw candidat yi mais candidat yi li ñu waxtaan président mooy jël dogal président mooy dix quatre dix neuf candidat xaw ma quinze. nee nañu ne président gaaw jël dogal soxlawuñu toog di waxtaan waxtaan bu jëmale ko kañ fu ñuy waxtaane ak lu ñuy waxtaane ban date la ñuy jël président na dogal c'est ça. waaw mais président même buy dogal mais xanaa. formule bi mu koy defee am na ci sañ-sañ même bu dee dialogue la mu convoqué ci nit ñi waxtaan ak ñoom. déedéet dialogue perte temps la de dañuy toog yenn soo ba ngoon ku ne di wax ñi bokk ci vingt euh, dix neuf yi xëy na bu ñu la am na ñeneen ñu yaakaar nañ ci war a bokk dégg naa ñu koy wax <laughs> alors que dialogue ak ñeneen ñu wuuteeg dix neuf yi weesu na xanaa beneen président bu toogee bu ñu bëggee modifier code électoral bi wala euh, constitution bi wala beneen text de loi. mais en ce qui concerne élection bii ñu jëm nii dialogue buy am entre président la ak candidat yi et je me demande même sur quoi portera euh, ce dialogue là vous porterez ce dialogue Pape nañu réaliste ñu xam ne le temps du dialogue est passé fi mu nekk nii c'est le temps de l'organisation des élections qui s'impose à tous dañu réaliste xam li mën a nekk ak li mënta ne d' accord alors mais xam nga ni élection yi aussi laaj na laaj na animation laaj na presque euh, candidat yu ci bëri ardeur bi ñu ci amoon.